ngi ci biir su mbëggeel gi neexu leenam wallaay ñi kenn bañu ko sama mbëggeel ak gone gi neexu leenam wallaay ñi kenn bañu ko suñu mbëggeel gi neexu leenam wallaay ñi kenn bañu ko sama mbëggeel mbëggeel wuy mbëggeel a neex bu la sa waay bàyyee man maa ngi dund sama mbëggeel ma soxla laa lay wax bokk nangoo ma def la soxna dëgg la jigéen amul njëg sax bu doon jaay yaa wëgalal sama nijaay xoolal li nga sol yaa ma gënal si karasol bu doon taw may doon sa parasol bañu ma ci taw te ba ndaxte béy bi danga tooy riis juddu waale am doo ko sàggane su ma bëggee gi neexulee nam waaw wallaay ñi kenn bañu ko su ma bëggee ko suñu bëggeel gi neexulee waaw la xale bi neexulee nam waaw wallaay ñi kenn bañu ko manang bëggeel wuy mbëggeel a neex ku la sa waay baaye man maa ngi dund xale ba mag tuuti ba mbaw bu ci dugg yaa ci des suñu diggante li ko benke ñeenkewu ko te dëbb ko mookal u la la la maa noom nañ leen sawi leen te tëddi fii oh la la la mbaa noom nañ leen sawi leen te tëddi fii marché kaay ma lay seen soo ma am jox la kaay ma lay seen junior awa baby kaay ma lay seen soo ma xam wax la kaay ma lay bëggeel gi neexu leenam waaw wallaay ñi kenn bañu ko sama bëggeel la gone gi neexu leenam waaw wallaay ñi kenn bañu ko suñu bëggeel gi neexu leenam waaw wallaay ñi kenn bañu ko sama bëggeel la xale bi neexu leenam waaw wallaay ñi kenn bañu ko maanaam mbëggeel wuy mbëggeel la neex wala sa waay bàyyee man maa ngi sama mbëggeel asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di ziar di leen nuyu yéen ñi fi nekk ñëpp ak ñu fi teew képp koy internaute ak ngay doomu Tivaouane ngay jeune comme man maa ngi lay nuyu di leen ziar di leen xamal que ni nag kontaan naa bu baax a baax a baax ci taxawaay yeeg lépp kontaan naa ci daal na parce que sama xol moo fees na parce que na trop site internet yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar aussi ak képp koo xamante ni client Woza nga. képp koo xam te ne ngay bëggee woo saa di sant sumay jur di leen ñaanal bu baax a baax di nga xamal ni kontaan naa. Euh, nga ubbi entreprise bu mag daal di koy tuddee euh, Woza création tey nekk cérémonie d'ouverture bëri na ci genre entreprise yu mel ni Dakar Thiès dañ ko doon gis lan moo la inspiré ba nga ne Thiawane parce que ñun ñooy ndaw yi dëkk bi di ndaw yi réew mi ñu ñoo war a mën a defal fi ñu dëkk parce que maanaam la nit daan dox di ko wuti dëkk ak dëkk. ñun ñoo ko fi war a mën a def ndax parce que loolu nit doo nga ko fa def te ñun tamit ay nit lañ te ay jeunes lañ te am nañ gëm-gëm bi am pas-pas bi waaw. di ci sant yàlla bu baax a baax nag dina xamal que ni li tax boo gisee ñu def ko bu baax nag pour bëgg lu gën a satisfaire suñu ay clients lu gën a taaral dëkk bi ak lépp loo xamante ni tey ji ku ñu fekk dinañu nawloo te dina euh, am ñu lu bari loo xam te mën na ko jouer aussi ci suñu ay moroom ak ñeneen ak ñeneen. donc euh, aussi njëg-njëg bi nga xam ne moom nga am loolu moom foo ko natt weesu na ko parce que maanaam sama xol moo sedd parce que même bu doon ñaari nit sax alhamdulilah lay wax na parce que nga woote ñu wuy si la dafa yombul parce que liñ naan louer chaise louer chaise yomb na louer bâche yomb na mais doomu aadama kenn mënu koo louer. te nit ki la tax mu lay ñëwal yow yaa ko koy wan wala nga dund ko ak moom du ma def lu dul nag ci sant doomu adama yi di leen gërëm ndax parce que lépp yàlla la aussi parce que maanaam xëy na Ousseynou defalu kenn lu tax mu koy bëgg wala mu koy wuy mais lépp yàlla la ma koy sant suñu borom baax ba baax ak sama waajur moom nekk lu am solo est-ce que Seydou alliance Weuz Création dafa fas ci avant ñi nga xamee noonu la loolu la doon ñawee ñi nga xam ne noonu la client yi client ñëwee ci moom wala ba tey loolu mooy continuer ni mu meloon avant. ah ah nu na euh, mbote maanaam xar weesu mbote su bëggee matum kuy ndax parce que lay fee fii benn ndax parce que da nga ne entreprise te ñaan nañ yàlla gën a yokk niveau bi gën a changer level bi. parce que man loolu laa man loolu laa gëm ndax boo xoolee deux mille vingt fekkuma woon fi ma nekk deux mille vingt et un fi ma nekk deux mille vingt deux noonu ba deux mille vingt deux mille vingt trois fekk ma fii nga xamante ni tey jii muy complexe Weuza création waaw kon na tey jii képp kuy liggéey da ñaan yàlla avancement te ku nekk li ngay ñaan yàlla te lii a Tivaouane la du man dama jël lépp jébbalaat ko Tivaouane Hmm. nga ne nga nekk ndaw nga créer entreprise Oza création. Hmm. ah euh, ñun bu ñi nga xam ne ñoo dëkk Thial ñu ngi koy doog gis genre endroit bu hmm. ñu ko doon ay Dakar ñu ngi ay 6 am gis ko fii nii Oza création lan ngay conseiller nga xam ne mooy sa morom sa yeneen morom nga xam ne ndaw parce que maanaam euh, di ñaan yàlla ku ci nekk yàlla bu fekkee gën na ci yàlla suñu borom may la li raw li Oza am muy sam képp kuy sama mu tailleur. te gën ci yow na parce que maanaam lii nii innovation la rek te ku ci nekk ak na ngay doxee ak na ngay demee na parce lu baax rek lañ fi roy waaw Woza mu ngi ko sa njëkk ko fee def Woza lu mu def am na fu mu ko jëlee am na ñoo xam te tamit ci Woza lañ ko jëlee na parce que dama dama dama message yu bari lañ ma yónnee yoo xam te ñooñu xaw ma leen da ngay gis ñu envoyé le message dama gis li nga def dama kontaan sama te ga dama sama xol dafa sedd ci yow te en plus ñoo xam te mat nañ la ay wayjur ni la tey ji dañ la def royuwaay xam loolu dafa rëy kon tey ji loolu bu amee dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax waaw di ci wax ne sama morom yi incha allah rabbi xëcc bu daggul liggéey moo koy def te ay moo ñu war na parce que tey ji lii caaxaan mayoo ko waaw na parce que ku fi dugg di nga xam ne lii nii liggéey di ci sant yàlla bu baax na ak suma ay employés yi nga xam te ne ñoom la ma yàlla booleel turu Ousseynou Gueye bi Ousseynou la mais Woza fu mu toll ñoom la na parce ñoo jàppale ñu def lépp wax dëgg neex yàlla maa ngi sant di leen gërëm waaw. ñu ñu ko ñu ko doon gis ñu ko doon gis Dakar euh, clientèle yi dañuy jóge ba fii di dem ba Dakar di ñëw te parce que dañ ko doon gis ci télé yi mu leen di jaaxal. ñu gis ko Tivaouane ne ñoo nekk Tivaouane tey buñ gisee lii ñu bàyyi ak ñëw bi ñuy ñëw fii na la ñuy na la ñuy ñëwee ci Weuza Création pour ñëw. Euh, loolu nag euh, ku nekk am na looy ñaan yàlla. Mm-hmm. muy lii gis nga yàlla def na sax nit danaa jóge dëkk dëkk ñëw ba sama place ma di ko ñawal mm-hmm. te ñaan ku ne ñaan yàlla international. waaw mhm. parce que man loolaay ñaan yàlla dama doon ñaan yàlla liñ doon wut jugee fii dem di ko uti ji di ko fi fekk na ndax parce que maanaam suma ay morom da ko fi moo ko fi def ndax parce que ci lépp léegi ndax parce que lépp évolué boo duggee marché xoolal jaay ko tissu ku ci mel ni ma jaay jóg dañ daan wër ko fi te sama morom la jeune comme man keneen ak keneen noon ndax parce que ku lim da ngay juum ndax parce que maanaam nekk xale te am jom man lii nii. su ma ay mag ñoo ma ci nàmpatal parce que ci seen ay tànk laay jaar te ñoo ma xàllil yoon ñoomoon yoon waaw di ci jiital sama mag sama papa muy badagay na parce que moo jàpp lépp moom la aw ma lenn lu may wax na parce que du ma ko wax dara dama koy bàyyi ak yàlla rek su ma jugee ci moom liggéey Sidy laay jëm na parce que moom mooy Ousseynou Ousseynou moom moo def Ousseynou Ousseynou waaw ku mu Ousseynou bu taxawee tey ba kenn di ko fonk wala am lenn lu nekk ci moom di ko nit di bëggee Sidy ndax xam bi ma nit ñi di toppee ci may liggéey di ci jéem di ci te yàlla suñu borom maanaam euh, barkeel ko ginnaaw yàlla moom moo tax kon nag moom dama koy bàyyi yàlla aussi di ko ci sant di ko ci gërëm. da doon faral di wax ni euh, lu nit naan mënul nekk ci ñaw. Hmm. création mën naa nekk wala mënul nekk. yow hmm. loolu ngay def est-ce que da koy dëggal ba tey. pire. billaay wallaay ñun xam naa lan la ñuy ñëw fer ak ak ciment. Hmm. lu ñu waa indi lañu koy ñawal te incha allahu rabbi dama pare pour jàkkaarloo ak addina waxuma Tivaouane waxuma Sénégal. àddina incha allahu rabbi ndax parce que maanaam boo xoolee rek xam ne pare naa pour jàkkaarloo ba àddina di ci sàkku ñaan bu baax a baax na. est-ce que entreprise bi euh, yi nga xam ne dañoo bëgg a jàng métier yi ci mel ni lépp projet yi la bokk hmm. ndax wàññi boo gis ci benn lay tàmbalee. Hmm. Ousseynou xam nga fa nga ko daan njëkk a fekk. Hmm. ci place yaay nongo. jóge na fa dem ci place Mouskéba. di fa liggéey. mu jugee fa dem ba tey jii nii di li fi mu nekk nii muy euh, koñ jàkka ba tey jugee koñ jàkka bu ñëw tey ci route nationale bi kon tey ñaan nañ yàlla entrée Tivaouane sortie Tivaouane Dakar Matam Tamba fu ci nekk exposition Woza création nekk fa tey wasaab bi ngay tëjee rek bala ngaa jeexal ban conseil ngay jox ndaw ñi nga xamante ni tey bëgg nañu liggéey xëy na xamuñu fan ñu jàpp liggéey nga nekk ndaw Sénégal bëri ndaw yoo xamante ni bëgg nañu liggéey amuñu bëgg nañu am xaalis xamuñu leen di am xaalis bala ngaa tëj bala ngay wax ndaw ñi maanaam gis nga liggéey lu mu la mayul du la ko xañ am euh, maanaam gis nga yàlla yàlla bay sa tool gis nga maanaam Tivaouane gi ñu nekk ñun jeunes yëpp am na jeunes yu bëgg mais maanaam gis nga maanaam ndimbal da cay fekk loxol borom yàlla yàlla bay sa tool gis nga nit boo bëggee dara da ngay def dara pour am ca daraja dara waaw te fii dara yombul loo fi xarewul doo ko fi am parce que lépp xare la rek de di dem te ku ci nekk yàlla ku ci nekk ñaan nga yàlla am tànki kanam waaw di conseil sama moroom mi nag ah Oza moom du kenn du leen nag mais xëy na as tuut sax am na lu ndaw loo xamante nit war na ko mën a xoolee muy cadre ci joobam muy lii nga xamante ni moom la ko yàlla dénk as tuut mu di ci foraatu waaw di ko comme seen sama comme man sama sama moromu jeunes yi comme man affaire yi liggéey la amul benn secret waaw.